soxna Seynabou ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen sant ci liggéey bii ngeen def nii te euh, lislaam rek tax ngeen def ko ak réew mi ak ak ak jullit yi ak taalibe yi ak ñëpp waaw ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm ci loolu ak euh, yomb gi ngeen yomb ci nun ak ci dikk gi ngeen dikk ngir xool bëgg-bëggi doomu aadama yi ak taalibe yi euh, ci ñëw fi ci nun dina dina dina ci laaj sunuy xalaat ak sunu gis-gis waaw euh, noo ngi nuyu Sénégal yëpp euh, nuyoo bi nu tàmbalee ko ci euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride ak mboolem xalifa yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ñoom ci la nu bokk muy xalifa Cheikh Adama Guèye di Serigne Cheikh Ibrahima Fall Guèye di sama mag. di xalifa seex ma géey jama euh, moom seex aadama géey di nuyu sëriñ Souleymane géey di sunu mag di euh, xalifa sëriñ Assane géey ak seex ma baabu géey euh, ca sam-sam di sunu mag may seen rak topp ci ñoom di xalifa sëñ Moustapha Guèye Yarwaay topp ci ñoom di ak ak samay rak ak samay samay samay rak yëpp ak samay doom ak sëriñ Moustapha Guèye Serigne Malick Asta mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh euh, Serigne Cheikh Malick Asta mi nga xam ne doom la ci sunu maam euh, Cheikh ma Babou Guèye ñu bokk euh, mbaabu bokk samsam bokk saam bokk njaago bokk gowec bokk ndengaleer bokk ndelle ak dëkk yi nga xam ne mboolem ci Euh, tarixal muridiya euh, ñoom ñoo ko bokk muy ahlu ngéyeen ñu bokk sunu maam Cheikh Adama ak Cheikh Mabaabu ak sëñ Malick Asta ñooñu euh, no ci loolu la ñuy waxe ci ndigalul <coughs> Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne ci mooy xalifa Cheikh Ahmadou Bamba di di sunu nijaay di di sunub sëriñ di di sunu maam waaw di di sunub sëriñ di di di di di di di rakki sunu yaay soxna waalo mi nga xam ne moonu jur waaw kon loolu ci loolu la ñuy waxe euh, ngir xamle ne diine lislaam jii nga xamee ne euh, sëriñ Touba ci la nekk euh, sëriñ Touba moom li mu nu jàngal jàngal ko sunuy wayjur di sunuy baay ak sunuy maam mooy ba sëriñ Touba Mamor Anta Sali demee ba fi Mamor Anta Sali nekkee seex ma baabu sun maam ak seex aadama dañoo àndoon ak sëriñ Touba nekk ca daaray Mamor Anta Sali di jàng loola moo jiitu yoonu murit bañ ca nekkee di jàng ba mu yàgg sëñ Touba woote eh, bi Maamor Anta seeli nelawee ci eh, associ ci ci sosin muy mil mille trois cent mu nelaw sëñ Touba woote eh, tarixal muridiya Cheikh Adama sunu maam moom mooy ka nga xam ne moo jëkk a jébbalu ba ba bi waxee ne alaa man saa saaxabanaa li taallumi fal yarxal wa man araada maa arat naa fal ma ana koo xam ne dangaa laxasaayoon ñëw di jàng fii eh, ci daara ji eh, yeewi naa la ndax dafa am leneen lu ma sama borom sant mooy yar doom aadama yi ak teg leen ci siraatal mustaqima ak man ci sama bopp li ma sama borom sant muy diine lislaam ma jëfandikoo ko feeñal ko te wax ko loo loolu mooy waxat saraxa Cheikh Ahmadou Bamba al-Mbakki bi annahu malaasun waximan wa mafsa man araada najaata fii kiltayit daarayni falyalus bii yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo digal si Ahmadou Bamba ne ko na nga woo sa taalibe yi eh, na nga woo nit ñi ak bindeef yi wax leen ne leen eh, yonante bi sallallahu alayhi wa sallam